yaa ñu ngi lay nuyu. waaw la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba mooy sant sama ndey suñu baax sant suñu Abdou Karim Mbacké borom xam ak laa sant si Serigne Abdoulaye Wade bu baax di suñu di sant nag sëñ Sidi Moutar ko sant bu baax di ko gërëm di sant nag képp ku sant Mbacké Mbacké rek nga nekk Mbacké Mbacké rek man yaaw jaa maa sant bu baax di la gërëm waaw a képp koo xam féete nga waa kër Serigne Touba maa lay sant bu baax di gërëm yaaw xam nañ sa diggante ak citadi euh, suñu Abdou Karim euh, lan nga ñu mën a wax sa diggante ak waaw xam nga ni man moom sëñ moom mënu ma loolu di ko ñaanal yàlla war a gudd fan. ndaxte sëñ bi def na si loo xam ne nii. def na si man loo xam ne lu yéeme la. moo tax su ma gisee yenn kàddu yu ñaaw di ko gis ay nit di ko wax man loolu daf may jaax man su ma mënee man yaa su ma mënul wax see wax ju rafet non mënu ma du wax see wax ju ñaaw day rafet rek xam la ak yeneen kilifa yoo xam ne nii. ku mel ni ak ndaw borom dikk ma Mbacke Samb bés ñoom Youssou Ndour mënuñ bëgg seen bopp kon boog ñoom mënuñoo jël ñu bëgg la seen bopp ba rek ñu ne kii ma ay micro ñu naan la xasal di wala waxal nit ñi ñaaw xanaa kay am nga tooñ bi rek te boo ma tooñee sax boo avant avant may ñu te sax boo ma tooñee sax waaw ba daw coopération tuuti mais man tam ma di wax nit ku ñaaw quoi mais comme man lu gars yi di joobee noonu ay wax nit ku ñaaw garde ba may laaj sa diggante ak sëñ bi lan la laaj bëggoon nga wax ñu waaw sëñ Abdou Karim Mbacke yàlla moo ma boole ak moom mm-hmm. sëñ Abdou Karim yàlla moo ma boole ak moom boole ma ak ay njabootam ba man tout le temps bu ma nit ki ne carte téléphone ni ma yaay dama lay interview su ma ko xalaatee dama ah bu yóbbu rek naa wax lu wax ji rafet ndax su ma wax wax ji ñaaw moom ay nitam dañ koy joxe wala mu dégg ko du kon du ko neex moo tax man di ma yàlla boole moom ba léegi ma jébal ak moom ma jébal si moom ba sama doom mu tudd Abdoulaye jébal sama soxna jébal ak sama doom mu tudd Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wasallam jébal si moom kon mën a mënuma lu mu di ñaan yàlla bàyyi Karim bépp doomu aadama boobu buñu teg tànkam Touba ji wala Ndindi ji yaakaar ji mu am ba ñëw fi rek yàlla na ko yàlla sotti ba lépp réussir si darajay Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wasallam si barke Alxuraan Karim wàllum euh, li ñuy wax hôpital bu bees bi nga xam ne barke de Mor Ndiaye la ko nekk Sall immigré loolu rafetul woon kon kon na ko dëgg si yàlla nit mu defee lu baax Touba bi wax ko def nga lu baax. yaa ngi dégg. mais mais doguma la boo rafetloo euh, hôpital ba pare manqué ndox mi fi nekk mu commencé nekk te màggal loo si wax. non loolu man loolu gënul ma man man mu dugg seen Touba gi seen affaire man gënul ma man xam nga tey am na boo xasee ba am yenn tur yi am yenn kilifa yoo xam ne dañ laa bëgg mënoo wax wax wax ci ñaaw. non mais du ñaaw mais doguma la mais au moins nga wax. état bi lan nga leen di wax ci ndox mi. état bi nit la woon depuis jamono Abdoulaye Wade te moom si jëmmam daf maa bëgg moom ko neexoon keroog mooy ma ko nee yóbbu ma si Abdoulaye Wade ma jaaxal lépp loo ne mën nañu ko def suñu Touba si ndox mi nañ si xar seen tànk tubéy ñu dox loolu ba loolu mu si jàmm ak salaam ndaxte loolu bu ko defee de Macky dina fi bàyyi boobu loo xam ne way lay doon sans nag mënuñoo bëgg saa yi nag mënuñoo ñàkk bañ a bëgg mais nag diggante moom boroomam ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak Serigne Touba rek bu ko defee rek kon lépp loo xam ne yaakaar na ko rek yàlla da koy sotti moom tam rek mais liggéey boo koy def boo ko deful gis rek affaire day naat da bu dee da nga gis rek ngeen waaye lu mu demee nii ay jafe-jafe lay dal te doo xam jafe-jafe lu mu demee fekk yow da nga joobe joobu ngisal la mais kaddu ma nag du kaddu Macky Sall quoi mais dama koy ñaanal yàlla lu mu inauguré ba gars yi bu kontaan waa Touba kontaan si loolu na dimbali waa Touba si ndox bi ñu am benn tuyau boo xam ne daanaka da koy sànni ma maanaam na sori dëkk bi léegi bu sori dëkk bi wàllum pompage yeeg li ñu koy pompier ci li yëpp pour ndoxum naan yeeg tamit mu jublu si ndax moom la fi yàlla teg moom la fi yàlla teg mag yi moom la ko fi yàlla teg man nga wax dëgg sàlla histoire moom histoire moom xuloo maag moom moom moo tax nga wax man ko lépp loo xam mën na ko monsieur le président sama nit nga rek comme keroog ba ma fekk kër Ablaye Wade suñu masar ko ji la mën na ko sa kaw sa kanam xam naa ne soxal dara néew si fexe nga defante ak Ablaye Wade ni ak Karim Wade ni ak ay njabootam nga jublu si waa kër Serigne Touba yow nag mënoo bëgg Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wasallam bëgg Serigne Touba ba pare di arrière la mënta nekk kon donc monsieur le président waay waay waay ne ko indil ndox mi rek mu leer waay waay monsieur le président waay waay monsieur le président totam ndéem o oh. <laughs> monsieur le président totam ndéem o si séeréer monsieur le président coo xam foofu barke sañu baax kay bàyyeeguñu ba tey ñu gis nga xam nga xamante ni moom moo di yére bi yaakaar naa nga bokk ci li nga xamante ni moom moo di sécurité bi ah il paraît que sori nga loolu sëñ bi man damaa def erreur juré erreur juré laa def xam nga tey boo gisee ma def sama wàllum sécurité bi dama ko def daaw ba station fils maa ngi jaale Père Mbengue bu baax ñu doon ak Père Diouf yàlla yërëm leen xarit ak yéen Père Mbengue station la bokk ak ñun Père Ibrahima ak Père duñ ko Bamumbu ak benn grand bi Ibrahima lii tam dafa defar abuli ak Bamumbu ànd seen waa fils ak ministre de l'emploi Dame Diop ak Souleymane Soumaré yaa ngi ak Modou Fall ñoom ñoom ñoo créé un litre un métier maanaam dañoo créé benn station boo xam dañoo jël mbir pour former leen formation garde rapprochée man bu ma defee formation garde waaw mais doo ko xamoon nag sama lan moom xaw non da nga ko waxaat rek dama non c'est que xamoon garde la xamoon moo ko waaye mais formation garde la garde rapprochée nga war doo comprendre xam laminam day dër. yaa ngi dégg kon sama a sa dër ba la na gars yi dawal coopération. Mm-hmm. kon tey su demee ba gars yi état bi jël ma ñu boole ma si formation ba yàlla def ma am si sama diplôme. kon loolu dama koy sant yàlla te ñoom bu leen neexoon ne yaawu jaal mi nit Ablaye Wade la amuñu moom affaire. daanaka carrément kon li ñuy def xaaj ak seen mais daf ñu xaaj ak seen barke de Mor Ndiaye la gars yi def formation lu toll nii quatre-vingt-dix ah. heures état amitié ba fu mu nii ñoom ñu a nekk seen yoo xam ne jot nañu fa woon tey ba ma mbuub boobu dafa nekkoon Italie doon liggéey mu dem liggéey liggéey liggéey ba affaire mu réussir ñun ba italien yi fu Sénégal ibi fi métier métier bi mooy lan dafa def def tout ba récupérer fi ay mbër di leen defal formation garde rapproché léegi nag sa formation garde rapproché boobu nag ba ma ko defee daaw laa ko defoon sama diplôme mënoon naa ko am mu génnee sama déguisement ñëw taxaw taxawaayu gëj dara raccourci waaye nag ñoom As Ndaw borom document ak ñoom Mbacke Samb ak ministre de l'emploi Dame Diop ñoom Souleymane Soumaré ñoom ñu baax lañu ndaxte nit ki ku liggéey damay wax ñoo ngi liggéey te ñoom bu leen na ne yaaw jaa di si xam yaa xam ko si Ablaye Wade kon maa ngi ñaanal yàlla ñoom seen liggéey yal na ko yàlla yokk te réussir ko si barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wasallam monsieur le président Macky Sall man nag gën a yokku di ko ñaanal yàlla liggéeyam gën a yokku lépp loo xam ne mën na ko def Touba fii rek barke Seydina Muhammad bu yeboo bu tëddee na law bu defee fii lu baax defal gars yi ndox bi ndox bu tëddee fi ay taux indi leen ay robinet pompe lépp fa law dina am xam ne ni que dina am am ngi ñaanal yàlla diggante moom ak Ablaye Wade ak Karim Wade yàlla ma xamee bëggoo Ablaye Wade bu dee bëgg dee